ba ni mu génn àdduna mosul dañ di jàggale diina te boroom xam-xam yi nga xam ne ay nit yàlla lañ nee nañu li nekk mi ba ak ku mos a nekk nitu yàlla moo di nga jël xam-xamu yàlla ak xam-xamu alquran ak xam-xamu islaam nga di ko dugal ci dënni doomi jullit yi loolu mooy mébét mi gën a rëy ci nit yàlla yi moom nag fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin man xam naa ne ñett yi boole woon na ko xamoon na xam-xamu moo di ni ñooy jaamoo yàlla xamoon na xam-xamu maarifa moo di li lii baxee ko ci yàlla dugg ci sa dënd bi nga xam ko te du jaar cib téere loolu xam naa ne xamoon na ko xamoon na it xam moo di loo ko won lu ne bu du dëgg mu xam ne li du dëgg xikma xikma moo di maanaam nekkoon na technicien ci adduna wàllu adduna sax soo ko ko gaaralee bu la ko waxalee ingénieur ba ko jàng du ci mën a xam la mu ci xam te it xam naa ne mbooleem lu doomu sax na di bàkkoo ci ci ci xeetu xam-xam mokkaloon na ko naanoon na ko ci dëndam def ko ci mémoire waaram ku ko mos a dikkal ngir indi xam-xam mbaa nga dikkal ko ngir lu la lënt bu la ko leeralee yow da nga xam ne lii mooy liwir ku mos a dikk ci moom pour bëgg xam diina bu la ko jàngalee foo dem yaa faay nekk drapeau waaye kenn du fa jiitu ku ko mos a dikkal bëgg mu xamal la yàlla bu ngeen tàggoo xam ne kila xamal yàlla xam na yàlla te it fullaam ja ak faydaam ja moom la mos di amee kenn mosu koy tax a xaw a jàng te it liggéeykat la amul kenn ci réew mi ko xam ne kii gënoon ngaay mën a liggéey sëriñ Mansour waxtu wu ne mu ngay jàng mu ngay jàngale mu ngi ubbee nit ñi mu ngi leen di gàgganti mu ngi leen di jëriñ ci diina boo sonnee ci baatin boo demee mu jox la ko soo gagee boo demee mu gàgganti la te su nawet mu bàyyi su mbéy ma pare mu joxe ko ak la muy dundee di bàyyi ko fa yàlla. doonoon na it koo xam ne am na lu xam ci moom am na ku ma xam muy ab taalubeem tudd aw li tax ma ne wali kaamil la woon. wali mooy ku xam ne kii bu nee fii nga dem taalibeem nekk ci beneen réew rooxam ak la tiim di la gis xam li nga nekkee li ma xam ci moom duut wax ju xam ne ji xaj na ci noppi nit ndax man am naa lu ma leer ci moom ci ne waliyu kaamil la am na ngëm gëm yàlla moo di sa xol bi lépp génn ci yàlla rekk nekk ci am na itamit taqwa taqwa moo di lu la leerut nga maandu ca. ay uh, seede yu imam niru Ka def ci ki nga xam ne moo di uh, borom daara ji uh, Serigne Mansour Sy te ñu. mu xam-xam bi tam bu ñuy sukkandiku ci li nga xam ne moo di dundam ak témoignage yi muy fii li mu fi joxe imam Euh, borom xam-xam la woon euh, naxte wax na ko ci ay anecdote yoo xamante ni yu bari sa raconté na ko ci yoo xam ne mënuñ ko cee bàyyi di wane ne euh, nit borom xam-xam la woon at li nga xamante ne mooy yàlla li mu ko mayoon rek mooy lu ñuy wax ci wàllu ñaan ak lépp loo xamante ne da recommandation divine la da ko doon wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy taalibe yi ñëpp rek ñu sukkandiku ci mais ba tey ba foofu ca mosquée bu Gibraltar boobu am na ay yeneen témoignage at koo xamante ne mu ngi tudd Babacar Sall koo xamante ne taggukatu yonente sala wasallam la moom tamit am nañ benn loo xamante ne indil nañ ko ci an cin Modou Diouf Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour kenn munu ci waaye li tax lu mu ñaan yàlla yàlla def ko dafa fegu woon ca la muy lekk fegu ca cër ya fegu ca yére ya fegu ca diggante ak boroomam loolu moo tax le 11 septembre mill cent 1997 alaaji Abdoul Aziz ci la ko jox testament ba la 14 septembre alaaji Abdou dem Barzak waaye alaaji Abdou daf ko wax ca testament ba ni ko num sëñ Mansour na nga dund ci keru jàmm ak salaam te ñaan sa borom loo ñaan yàlla yàlla def ko isma taja fidil li arsin arqadin mari an raqiyal baalikul la awaani ñu ne Cheikh alaaji Abdou kan la jox testament ba kat ba bind ca ne à un homme de valeur un homme de dignité un homme très sincère un marabout très élégant l'actuel calife de tous les califes le propriétaire de la limousine l'une des rares personnes et sans doute le seul marabout à avoir envoyé un pèlerinage à la au lieu saint de l'islam au moins trois cent treize personnes en assurant leurs dépenses quotidiennes ñu ne léegi ñu xam kan la mu ne xoolal un homme de valeur ñu ne ko waaw mu ne l'homme au grand boubou extraordinaire et rayonnant comme l'arc-en-ciel Cheikh Seydi Mouhamadoul Mansour loolu moo Serigne Mansour ñaanal yàlla wax ak yàlla loo ñaan yàlla def ko alaajat du nee na ko man suuru santal yàlla cant gi ñëpp xam loo li jaadu defal bi duuni tawaani ni ku nit naa ngi lay santal ilaa hëkka daayi man ndax lee mu dolli la may bi la nuqusaani ni ko jàppal ci lii ma wax nga gëm ko te def ko muy ngànnaay ci yow tanju mina seytaani ñu ne Cheikh Alaa Jabdu Sëriñ Munir ne géej la Alaa Jabdoo ko ko wax ni yaa يا مجمع البحرين يا ألم الهدى فخر الحزيلة نزأة الأكوان نكق يا سيبوي زماني بل قسوا وفهما دون ما نكران نك أو مسلما إن كنت جاهر ما روي عن صاحب الآيات بالبرهان نسيخ لاجمالي موتخ ميار نجبوتم تنكلن تبابو boobu kurkur mooy boobu concession ba ñimewuñoo déraper moo tax Serigne Mansour loolu mu am mi ngi ko donne ci Serigne Babacar Sy mu donne ko ci Seydi Hadji Malick Sy mu donne ko ci Cheikhouna Ahmed Tidiane mu donne ko ci yonent bi mu donne ko ci sunu boroom na yàlla yokku leeram ci barke Seyduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaram yaram daw na Euh, euh, mbay Sall euh, wax lu lu inspiré inspiré lu lu neex loolu tënk na lépp. <laughs> tënk na lépp tënk lépp ajaratu ci woy bu neex bi nga xamante ne def na ko di ci wax ay kàllaama wolof di ci wax kàllaama tubaab di koo xamante ne nit ku civilisé la woon moom sëñ Mansour si borom daara ji di remercier ki nga xamante ne mooy imam Mounirou Ka ak ki nga xamante ne moom mooy mbay Sall di Babacar Sall. at lu neex loo xamante ne def na ko ci sëñ man Mansour si ak yeneen yoo xamante ne rek da koy def loo xamante ne ci tarixa yaa bi la ah, ci lépp loo xamante ne tamit yonent sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko yitteel di ko ci jaajëfal bu baax mm-hmm. mu nekk loo xamante ne tamit wane waar na encore une fois qualité yi nga xamante ne sëñ Mansour moom la am moom la ci relaté wax na ko ci rapport ay yoo xamante ne waxtaan sëñ Abdou lu mu wax ci sëñ man Mansour yooyu yëpp di ñu wax ci moom naan c'est un homme de valeur comme ni mu ko wax rek ba di caractériser aussi nga xamante ne mooy côté habillement di ko ci woyaale en même temps élégance ba élégance ba mu <laughs> àndaloon yooyu yëpp waaye muy lu ah. neex tamit te di lu rafet mhm. maman looy wax ci borom sañse bi waaw wax nga lu ma neex nag xam nga ginnaaw euh, yu baax yi mu yi ko yàlla baaxee yëpp foo côté boobu bi dañ ko cee ràññee woon bu baax a baax a baax muy côté bëgg sa bopp bi mais tamit mu am beneen côté boo xamante ni nii da ngay gis euh, dafa dafa laa biir sëñ Mansour dafa nekkoon nit koo xamante ni den nii euh, danga koy gis nga xam ne xol bi dafa rafet doo du soppeeku à chaque fois benn rek chaque jour ni muy ñëwee ci bee passé noonu lay ñëwaatee ci bii maanaam ci kaf bi ci reetaan bi ci ànd ak jàmm ji jàmm ji nag surtout mu nekkoon koo xamante ni leen ni euh, li ñuy jooy ci moom rek mooy xëy na li mu dem bàyyi ñu li tax maam Abdou dénk ko xalifa bi moom moo ko xamoon parce que ñoom tamit seen dara du hasard lu ñuy def dañu koy saytu xool ko ba nga xamante ni leen ni lu ñu def rek loolu moom moo war a nekk mais dangay gis que ne bëri woon na ay qualité yoo xam ne dañ ko doon ràññee ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh dafa nekkoon ci man Mansour si muy nitu jàmm nag jàmm dafa nekkoon nitu jàmm joo xamante ne leen ni macha allah da nga koy gis rek da ngay nekk boo demee nga jàkkaarloog moom da ngay nekk soo ko dee seetaan ci télé bi nga toog jàkkaarloog sa télé di ko seetaan tamit sa xol day féex xam nga tamit waax nit bi neex na nga wax nit bi neex na parce que ñun ñëpp yàlla la ñu am mais nga ko koy wax pour mu dugg ci moom dafa am système boo ko koy waxee te moom système boobu la naan doon ci Sénégal amoon na pédagogie waaw dafa amoon noo xamante ni leen bu mu doon euh, fexee ba nga xam ne ku muy waxal nga bokk ci tarixa bi nga ñàkk cee bokk di nga ko mm-hmm. juste xam ne ñëpp ko mujjoon a bëgg ku ko bëggul ngir jaam bëggoo ko ngir tarixa bi di nga ko bëgg tamit ngir sañse bi aspect bu nekk dafa laaloon te loolu dafa baax euh, indi ci lépp aduna tamit la ñu nekk day asu boo ci nekkee di dund yaa xam ci wàllu boo mën a nekkee war ngaa wone exemple boo xam ne boo fi génnee nit ñi bu ñuy wax ci yow it dañuy wax ci yow ci sa set ci sa ci sa ci sa taar yaa xam ci nu mu nekkee rek côté boobu te macha allah moom uh-huh. nekkoon na it maman uh, borom ñaan waaw euh, nit ñi dañuy dem ba di wax ne que ne ku mu ñaanal xaas tekki nga parce que macha allah ñaanam boobu du dellu ti du dellu ginnaaw wax dëgg yàlla mu doonoon koo xamante ne ñaanam moom ñi soxla woon nañ ko torop dañ doon da jóge fu nekk di ñëw di ko tàllal loxo pour mu ñaan mu yéwén noonu ci torop lépp na xam naa xol bu bi rek la ndax bu sa xol koo ñaanal rek ñaan bi day daal di antu macha allah daal moom yàlla na yàlla yokk leeram yàlla taas na ci baaxkeem mm-hmm. te gis nga Ndeye Astou bi fi euh, euh, toujours si laabiram bi fi Cheikh Chérif ñëwee gis nga ni mu ko accueillir woon ba pare ak euh, li nga xamante ne teralal na ko mais tamit boo tuddee sëñ Mansour da ngay ni moom moo di ponctualité ba pare tey jii bu la xasoon ba bu la xamoon nii sa tur heure bu ngeen waatee day dellu sa tur loolu nag mi ko jëlee mi ngi ko jëlee si baayam di Serigne Babacar Sy mm-hmm. moo tax nag bi mu nekkee ci xalifa bi ziar général bu daan am nit ñi fu nekk lañ daan jógee mais taalibe mi daf leen di xàmmee da daan jaar seen tour ba pare da daan jaar ci turu président yi euh, te naam sax âge bi mun na mun nañu wax que ni mayitu ko woon mais dafa amoon capacité boobu noonu te loolu mi ngi ko jëlee ci baayam Sidi Hadj Boubacar Sy mu doon noonu royukaay royukaay bu bu mat royukaay euh, wàcce wàcc wàcce liggéey mu euh, toll ci ci ñaari at bon ñu ko doon fàttaliku fàttali ñu ko doon fàttali ajaratu Ndeye Astou te mu nekk koo xamante ne dañ koo war a sax fàttaliku sëñ Mansour si borom daara ji nekk na koo xamante ne vraiment marqué na li nga xamante ne moom mooy Sénégal euh, ci bépp fànn quand même at euh, waxtaanam at manqué na tey ba tey jii ne wàll waaye yàlla ak dogalam ba tey jii mu ngi ci biir xol yi di ko fàttalikuwaat day mel ni mu ngi dund ba tey ndax liggéey bu rëy boo xamante ne rek def na ko fi. Mm-hmm. Adja mm-hmm. Fatou lay gërëm. na ngi lay fay di la gërëm également. Mm-hmm. di wax ba beneen aljuma incha allah ba beneen aljuma sant nañ la gërëm la. di gërëm ñun tamit. ba am nañu kontaan bokk ak plateau bi tey. <laughs> ba ba ba altine ak jàmm. incha allah euh, Mamika. <laughs> waaw ba tey rek. <laughs> Ah, non grave la après après ah. après dinaa la jox carte membre ndax sama carte jeex na. waaw fans club bi la fans club bi la la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal mu bëri fans Mawika mu bëri fans. <laughs> ah dëgg rek la <laughs> ah, gërëm. di gërëm di la sant lu bëri. Mhm. kontaan nañ ci ci teewaay bi xam naa dig la daje aljuma ak jàmm aljuma ak jàmm équipe euh, première équipe ñu leen di gërëm di leen sant mbokk yi yéen itam di leen di gërëm ngeen des nag euh, deuxième équipe lee mu teew euh, dañuy dem ba tey nag Tiwaawan ànd fa ak nga xam ne moo di Doudou Kenn Mbaye waaw asmaan li jaay kenn diine si ngaari yow la mu wóoroon asmaan li jaay kenn diine si ngaari yow la ñu wóoroon waaw yorul fital yorul jaase kurus ka lay noote noonu yaa yëgoowul ak sa moroom ñëwaat ak yéen ci euh, troisième et dernière partie seen émission petit déj euh, comme ñeneen ñi un Doudou en cacher un autre du Doudou kenn mbay waaye Doudou Ndiaye Rose ba tey nag mu jëm euh, ci Doudou Doudou Ndiaye Mbeng Doudou Ndiaye Mbeng waaye nag ñoo bokk tur turandoom la Doudou Ndiaye Mbeng mënuñu doon ñu wayal ki nga xam ne moo Euh, borom euh, daara ji euh, ñu fi dalal bon suñu deuxième équipe deuxième équipe bi ñu ànd fekk ñaari chroniqueur ak ñaari gan en attendant Thioro en di yeeg Khalifa ñu lay nuyu. Mhm. Khalifa euh, Ababacar Gueye di euh, ganu Corombaan Ndiaye moom nag ci kanam dana ñu wax ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu convention des euh, des jeunes reporters dana ci dikk ak ñun ci kanam tuuti jaajëf waay. jaajëf waay. gomi sa gaaña. Faxe Ndiago ba ca Paris waay. Mhm. <laughs> sa xarit bi sollu bu lali. waaw waaw waaw waaw Amina Diagne. soxna Amina Diagne. waaw jëkk mu Baba jañ naar <laughs> mbaa yaa ngi ci jàmm jañ naar eh, jañ naar indi indi na table ji fees na indi na ay matériel am ay bagage am eh? ay ay comme d'habitude ciw saa yu ñëwee mu neex comme d'habitude nga am fi gan waaw am fi wax ci wàllu karité soxna Ndiémé soxna hmm. madame Ndiémé Ndiaye hmm. ñu di ko di ko dalal maa ngi leen di fay sant tamit ci invitation bi ngeen ma indi ci seen plateau bi hmm. waaw euh, bon tey Amina ñuy wax ci karité karité du lu yàgg xam nga sànq danañu wax ci sedd bi ba tey nga dañ nekk ci tiitaan naa sedd bi euh, ñi ku nekk ak sa technique sangu sangu sangu sa technique beneen affaire la après après après après di ma ko wax <laughs> ñuy wax bon ci wàllu euh, karité karité cosaan ci Sénégal cosaan ci ci Afrique rawatina Afrique de l'Ouest mu bari ngëneel lool ci doomu aadama Euh, wax nga ko ajaratu tey dañuy ñoo fas yéene waxoon nañ fi sax quarité waaw waxoon ko fi mais ba ñu demoon fo ba ñu demoon euh, gaar ba waa voilà mm. mais tey dañuy dellusiwaat ci quarité ci beneen anam parce que bi ñu demee woon euh, gaar ba xëy na ñu ngi doon wax quarité ci wàllu traditionnel ci wàllu manuel ñu ngi koy traité mais tey ñu gis ne que karité bi njëriñ gi mu am tax na léegi doomu réew bi gis boobu boobu njëriñ ba tax def ci ay jéego di ko traité léegi de façon industrielle ba mën ci am une plus-value c'est-à-dire karité boobu yamatul léegi rek ci euh, local bi mais léegi gis nga ni ko traité génnee ci ay façon produit nekk mu nekk ay lait de corps nekk diw yaram nekk ay crème pour la mains nekk saabu nekk karité bi nga xam dañ ko traité ci boppam ba ci ay chocolat li bi lan la kii chocolat la nga xam ne danga koy chocolat chocolat ah noir ak karité ak chocolat bi nga xam ne dañ koy tartiner ci mburu yàlla nga yàgg dikk waaye ci <laughs> naar tey mhm. loolu lañ leen indil ak sunu euh, gan gi mhm. di madame euh, Ndiémé Ndiaye alors euh, madame Ndiémé Ndiaye moom am jaar-jaaram dañuy wax ne doomu Sénégal la boo xamante ne moom dafa jàng li ñu naan commerce mais bi mu jàngee loolu ba pare Euh, dafa dem fële di Genève fa la fa la fa la fa la dëkk mais euh, sopteem dénkumpaam indi ko ci mu gëstu ci wàllu karité ba commencé di ci def euh, di ci créer ci loolu nag si la ko loolu may na ko mu am ay raaya bu si mel ni am na deux médailles de bronze benn bi en 96 et en 98 ci salon des inventeurs de Genève de Genève beneen raaya bi doon médaille d'or fala ci salon aussi des inventeurs Séoul. ah. Mhm. Mm. foofu noonu ba léegi mi ngi. na ne moom euh, Genève la ne euh, fa la defee recherche meeg yëpp mais Sénégal la représenté la représenté foofu. dugul ci loolu bi ma xamee ne que vraiment karité euh, bi ñit ñi sa àddina bi yëpp ñu ngi koy bëgg nañ ko di ko découvrir mu jaral ko mu breveté lii di création yi nga xamante ne en 97. Euh, am na brevet bu bu France am na brevet prix Union européenne des voilà très bien boobu également gagné na ko en 2003. 2007. 2007 prix inventeur deux prix euh, prix femme prix européen des femmes inventeurs. des femmes inventeurs boobu gagné na ko en 2007 à Berlin. au nord du Sénégal. effectivement donc daal di. donc euh, ci loolu nag si la jóg nag ni moom. waaw bon kii macha allah xam-xamam euh, kenn dootu ko ci at. déedéet nag jëm ci wàllu. Euh, ci wàllu ci wàllu karité. voilà mhm. ba loolu tax na sax mu daal di jël xam-xamam boobu ak temps mettre ko au service de la femme ne léegi moom dafay ñëw di encadrer femme yi di leen wan naka la ñu mën a def ba valoriser sunu karité bi mhm. nga xamante ne dinañ ko mën a exporter ci anam yu yu dëppoo. ak norme yi mën ko jaay biti réew parce que nag li tubaab yi di ñëw fii jël si ko fii à l'état brut yóbbu ko euh, dem travailler ko ba pare ñëw di ñu ko jaayaat ah te ñun ñu am xam-xam boobu mm-hmm. ci loolu la doon def ba cadre na euh, ku si mel ni maison de réinsertion euh, bu nekk Genève encadré na personnel boobu ba def le transfert de technologie bi dellu ci handicapé yi encadré leen pour ñu mën a am ci lu ñu jàpp mhm. daal di nag commencé ñëw Afrique di yëngu ci loolu léegi lu ñu mën a wax ci ci karité bi ci suñu tam tam tey karité bi waaw ala Adja balaa ñuy kii ci ci karité bi dama bëggoon ñu xool tuuti rek suñu élément mhm. ñu xool moom naka la naka la naka la naka lay liggéeyee li c'est-à-dire ci début ba moo xam ni ñuy foree karité bi ba ci transformation général bi. naka la koy liggéeyee. Mhm. ñu xool après nag ñu soog a dellusiwaat nag ci ci karité bi. ñu dem ñu dem doon ay euh, produits yoo xam ne bon euh, jóge na ci euh, ci karité ñu gis nag processus bi. waaw fa ñu koy wittee nañu nañu koy nañu koy liggéeyee mu nekk processus bu bu am solo. waaw voilà Adja wax nga ko mu nekk processus bu am solo gis nga doom yi la ñuy commencé witt déjà buñ ko wittee foog naa ñu weer ko et ainsi de suite xam naa dama ciy ñëw rek ak sama gan moom mu gën ñu expliquer naka lay demee. waaw tey nag moom mënuma man dama femme gis bokkuma ci femme yi man wax ci ak télé bi waaye dinaa jéem Caris <laughs> dafa loo xam ne dafa metti pour jigéen ñi pour am ah, pour defar ko pour am 4 kilos de quarité il faut cent kilos de fruits ak 29 heures de travail te seen qualité daawul baax ñeent ñeenti kilo karité ngir nga am ko cent kilos de fruits ak 29 heures de travail sous le soleil. téeméeri kilo doomu karité bi. waaw mooy joxe ñeenti kilo. ca ca qualité bi daawut baax. te qualité bi du baax qualité bi. ci qualité bi baax léegi nag moo tax nag bala may commencé ñëw Sénégal dama ko njëkk a def expérience Burkina Faso dimbali jigéen Burkina yi jóge fa dem Mali door a ñëw na. léegi bala ngay xam euh, nit ki bala nga koy indi solution da ngay xam problème ba pare ma summee ko ànd ak jigéen ñi pour ñu xool lan mooy karité ñu dox 13 kilomètres. mu dem ci àll bi for ko wax dafa am boo gisee ñu wax qualité dafa bokk ci liggéey pour pour am qualité bi dafa am processus ay formation war a def waruñu ko dagg da ko war a bàyyi mu wadd nga for ko yëpp da ko war a jàngal jigéen ñi hmm. nuñ koy foree nuñ koy raxasee moom li ngay gis ne ñaata ndox ak ban ndox suñu ci loolu nag buñ dindee fruit bi dañ koy weer dañ ko weeree ba mu wow ñu dëbb ko dindi xott bi mu des noix bi kii yore nii doom bi waaw li mooy doom doomu bi parce que mhm. doomu quartier baa ngi joxal léegi doom bi joxal ko léegi doom bi da war a dëbb doomu quartier baa ngi ni joxal benn ah, kii doom bi da nga a dëbb ba mu mokk comme ni ngay dëbbee dugub mhm. soo paree da koy saaf comme ni ngay saafee gerte soo doom bi kenn du ko lekk nii soo ko saafee pare da koy dër comme ñuy dëree tigé dégg ba pare daal di koy euh, def ci ndox mu tàng di ko di ko di ko dóor dóor bu métti métti ba jiw bi yéeg su jiw bi yéegee nga jël ko defaat ko ci cin bi pour ndox mi évaporer ñu door koy filtrer ak ay morceaux bu njëkk ba léegi nag indi leen ay machines yoo xam ne day def soixante kilos par quinze minutes soixante kilos par quinze donc kon nga xam ne coono jigéen yi wàññeeku na euh, pénibilité bi le temps bi aussi dañ ko wàññi. génne na suñu karité bu nekk pressé à froid boo xam ne amul microbe amul dara avant loolu dañ leen defal nag ay infrastructures yoo xam ne qui répondent norme di d'hygiène après infrastructure yu leen ay machines yi machines yi ñu ngi ko defaree aussi Afrique dans le cadre développement durable pour montrer que ñun suñu bopp am nañu xam-xam aussi mais nag ak matériaux boo xam ne bii day nekk euh, professionnel qualité loolu moo génne suñu karité bu nekk pressé à froid liggéeykat moo moo nekk ni jigéen ñi sonn nañ moo tax ñu ñëw pour dimbali jàpp leen ci technologie bokk ak ñoom liggéey ko parce que projet jigéen la ak jigéen ñi pour jigéen ñi liggéey karité metti na ah. liggéey karité métti na nga am qualité karité bu baax moom mu jaroo ko sax euh, foog naa expliqué na ma ne que karité doom garabu karité il faut cent ans bu fekkoon da ko doon saxal tey il faut cent ans pour mu màgg mën a jur ay doom. cent waaw. Eh, eh, lay dund. lay dund ah lay dund. waaw waaw. amee ñaar ci lay door commencé. lay commencé am ay doom. lii comme ñu dañoo def investissement bu bu bari ñu anticiper mois de juin defar nañu cinq mille plans de charité ci Kédougou. ci cinq ans incha bi ak technologie bi ñu indaal dañuy dañuy am dañuy am doom laaj de cinq. cinq ans incha allah bi gën a bëri qualité bi aussi gën a bëri ñu lancé nag benn euh, campagne cette une femme un arbre un jeune un arbre pour toute la région na waaw loolu yëpp rek soo gisee mu def ko. Mhm. dafa bëgg rek qualité bu baax ci ci début production ba fin production. fin production bi nag mooy lii mu indi tey jii parce que ñëpp xam nañ ñu euh, njëriñu quarité ñu ngi dugg sax ci sedd bi. loolu mooy sunu prétexte sax moo tax ñu indiwaat tey quarité ñu gis ne que da nga ci defar ay produits yu am solo euh, ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti si sa ay produits lan la ba tax yow nga gis boobu njëriñ tey jii ba ñëw nga créé si lii yëpp. affaire bi euh, moo vivre man parce que xam nga sénégalais toujours bëggul am parfum ak ñun ñëpp sénégalais moo bëggul africaine en un mot moo bëgg produit bi am parfum man dama amoon ay allergie yu grave. léegi nag daana dem ci docteur ñu ma jox ay cortisone di ma jox euh, duguma ci ay UV bi ma commencé carte boobu à il vingt ans diw ko sama yaram affaire bi dañ mais xet gi dafa amoon dafa caractéristique ba nga xam ne dafa xeeñ bu ëpp il fallait trouver benn affaire pour dindi xet bi ci loolu laa doon nag ba yàlla def ci nag ma trouver benn euh, combine bu dindi xet bi ci la sama invention ci loolu ci loolu la judd ah kon am na njëriñ di ko diw ba mu dañ pourquoi pas mu nga def bokk ak ñeneen ñi yàlla nag moom mooy seet ku ko neex mu may ko lu mu lu mu ko war a may mm-hmm. du lu ma jàng mais bu suñ toogee dox tey ci karité def naa du jeex ndax li ci nekk dafa bari mm-hmm. façon bu am na nag mm-hmm. ñun dañuy préciser jaar karité et karité suñu karité bi ñu defar ñun dina dina dafay prévenir pour ride dafay protéger contre l'agression du ku koy ku koy jëfandikoo doo gaaw gaaw sa der du gaaw a sedd bi dafa am daf lay xam nga pollution bi dafay agressé même ndox mi am na calcaire dafay donc sooy diwoo karité daf mooy ci suñu principal de la peau mooy polition calcaire ak sedd bi même naaj bu tàng bi aussi dafay dafay dafa yàq sa yaram. loolu moo tax ñu def karité pour bébé aussi karité du pour rek jigéen góor moom xale mag bu ñëpp pour c'est pour la famille. pour ñëpp mm. gis nga Adja naa ci li mu tudd léegi noonu. mooy bi ñuy liggéeyaat. karité bi ñu liggéeyaat bi. dañ ko traité. parce que man lépp lépp mm-hmm. lu ñuy lu ñuy traité d'accord. c'est déjà ouvert. ah c'est déjà ouvert. gis amul xet. neex na oyof na. Euh, kii boo ko jëlee comme ni mu wax léegi agression yi nga xamante ne moom la ñu jànkonteel pollution bi poussière euh, soleil beek yooyu yëpp kii guddi nga jël ko nga diw ko ba ba sa yaram yëpp tooy boo xëyee nga duggal tuuti sa ndox nga sangu daru gënu ko sa teint foo ko fekk dafay dafay dafay takk sa yaram foo ko fekk du am ay xar-xar surtout tànk yeeg yooyu crevasses yi gerçures yi foo ko fekk yow sa tànk du du xar Euh, dafay tax aussi dafay euh, dafay euh, comment dire. dafay noyal sa yaram dafay noyal sa yaram voilà da koy nourrir. waaw xam nga carité ñu ci bari boo gisee ñëpp xam nañ ne dafa baax mhm. mais fenn rek la ko gars yi di dawee mhm. mooy xet bi ah, mais xolal bi waaw waaw waaw foofu laay dikkee mhm. donc boo gisee que gars yi duñ koy faral di ñu koy utiliser utiliser comprendre nga guddi la ñëw utiliser ko Euh, bu ñu yeewoo sangu. Euh, kii euh, sangu mu dañ sangu mu dañ. <coughs> mais kantaan ñëw nag. Mhm. <coughs> indi ko ba nga xam ne amatul xet boobu. Mhm. xet boobu de mais est-ce que. Mhm. xet boobu deñ. est-ce que maanaam kii am maa njëriñam. njëriñam mi ngi fi ba tey ce que mu ngi fii ba léegi. waaw est-ce que mu ngi fi ba léegi bu dee kii bi ah, dem nañu. ñu ko travaillé travaillé waaw ko travaillé travaillé est-ce que vraiment tey yow mii mun nga garanti ne Euh, lii mu ngi denc ay ay njëriñam ba léegi. waaw loolu la saw naa ci trop tontu la ci. ah jaajëf waay ñëwal sama combat yëpp yëpp yëpp depuis vingt ans. Mhm. li may lancé quarité Suisse boobu tubaab yi bëgguñu ko. mais ma ne fu ñu la wax toujours déet déet bu yàggee waa bu yaa ko war a jëli produit naturel moom mas nekk sama affaire dinduñu ci dara c'est produit cent pour cent naturel la mais bu gisee fu ñu fu ñu rawantee ci Carité mooy processus bi. noonu lañ ko defaree ba mu yegsi ba fii am na ñuy def produit chimique pour dindi xet bi am na ñuy def fariñ am na ñuy def euh, safran am na ñuy def le mais bi amul dara soo gisee ma ñemee woon film bi loolu la dañ koy topp ci doom ci garab bi ba fi moo koy defar amul benn produit chimique te duñ ci sànni dara même déchet dañu ko récupérer waat dañuy jàngal femme yi nu ñuy ko gisee nañu koy xollee nañu koy raxasee ba ci yooyu lay am dara nekkul ci lu bon dara dara verte mi ngi ci kii boo ko essayé rek yow sa bopp yaa ko sa bopp parce que xam nga yaram du fen <laughs> yaram xam yaram du fen yaram soo ko jox lu mu bëggul du ko yaram du fen kon am na diw tam. am na kon nag ci def saabu def ci diw def ci am na dama lay sa question booy xam nga yaram du fen waaw moom loo ko jox loo ko jox. su baaxul wala bëgg du ko jël. daf koy bañ da koy rejeté mais bii boo ko defee mu naan ko rek xamal ne soxla woon na ko suñ karité bi vitamine yi euh, lépp loo xam ne bi sa yaram da ko soxla ci vitamine mu ngi ci karité ci ñun mm-hmm. soo gisee ñu am ay médailles yi ci yëpp euh, sur le plan international parce que dañu dañu dañu tee vertu karité bañ ci def dara lu ci bokkul xam na ki amul amul parfum ay huiles essentielles donc la ak karité pure ca haute gamme Sénégal dañuy soo gisee moo ñëw Sénégal dañu bëgg ma bëgg ñu favoriser made in Sénégal mhm. mais made in Sénégal pas n'importe quoi made Sénégal haute gamme tey produit bi may jaay Suisse même produit bi moom la ñu jaay Sénégal d'accord euh, ñu dellu ci euh, parce que sànq mi ngi doon wax njariñ lu bëri li nga xam ne karité bi ci boppam am na ko euh, di ko def ci yaram surtout jamonoy sedd bi ñu nekk waaw wax nañ ko léegi ah karité dafay hydraté bu baax hydraté euh, donc yow du coup lépp loo xamante ne yow ay kan yaram yi ras la ay euh, bu fekkee da nga amee ay eczéma bu fekkente ne da nga da nga da nga bébé la bu am sax ay euh, nu mu tudd ci ay. Euh, irritation ay irritation xam nga bu fekkee yow mii nga xamante ne jigéen bii diwu sax ah, ak même ku dul diwu ku bëgg rek conserver teint naturel am tout simplement euh, mën na di utiliser karité bi. donc donc bu ñëwee kii bi ñu traité ko de façon euh, industrielle defar ci diw nga xamante ne yow fekkee da nga bëgg maintenir sa temps yi nga di ko diwoo quarité euh, bi am na ci solo parce que composant bi quarité kese la à la base ak ay huile essentielle comme nu mu ko fekkente ne yow aussi sa dafa abîmé soo ko bëggee réparer karité bi mi ngi fi bu boobaa quarité naturelle bi kese rek nga jël ko di ko diwoo guddi gi daf ciy am solo parce que mi ngi delloo si waat sa peau mi ngi koy réparer mi ngi koy réparé waat alors savon bi aussi mi ngi fi parce que gis nañ ne que euh, mën nga mën nga am ay savon gras yoo xamante ne pour euh, sur gras pour dindi euh, peau peau peau grasse yeeg pour lutter contre les peaux sèches affaire yu demee noonu donc savon bi également ni ngi ko travaillé ak ak karité daf koy dafay tax yow nii lépp lu sa yaram soxla ci vitamine yi mhm, mi ngi koy mi ngi la koy mi ngi la koy jox crème mais yi ñëpp xam nañ ne que sedd bi ak ñun jigéen ñi tout le temps sunu ndox sunu loxo nii fóot ngi nangam sàngam donc aussi mu ci karité boobu mu génnee ci leneen loo xamante ne daf ñuy permettre loxo yi di nooy tout le temps parce que nag loxo jigéen taamu nañ ci liggéey waaye itam taamu nañ ci mu nooy mu mu mu mu neex euh, mu ngi noonu. waaw waaw li li ci nekk yëpp kenn kenn ko mënu ko wax. kenn mënu nag mooy li ma gis mu chocolat waaw wax naa la ko léegi kii chocolat la euh, kii nga gis ni chocolat noir la parce que ñëpp xam nañ ne chocolat Adja dafa baax ci xol. boo dee consommer chocolat noir ay problème cardiaque doo ko am léegi nag moom le fait que aussi karité baax parce que soo xoolee sunu maam yi dañ daan jël karité di ko xóoyal ci ci ci lu tàng moo xam du mënti doon moo xam sa café wala sa meew euh, xóoyal ko di ko naan di ko consommer mu ne kon pourquoi pas moom mu combiner ñaari chocolat noir bi ak karité bi pour jox encore wér yaram yokk nit ñi wérgu yaram ci ci lii moo waral gis ma chocolat noir bi nga xam ne danga koy jël di ko di ko def ci sa lu tàng. d'accord di ko naan. Mhm. mu nekk lu am lu am solo. kii itam mu nekk euh, chocolat à ne la. moom itam danga koy def ci sa mburu rek. d'accord voilà. Euh, mu nekk lu am lu am solo bon qualité bari na ay ay njëriñ yoo xam ne euh, mu ngi koy mu ngi koy def ci nit soxna soxna Ndiémé Ndiémé <laughs> Amina. voilà kon lii lañ leen karité ba le dañoo waxoon ci façon euh, locale tey de façon industrielle ñu won leen ne que mën na am plus value ci loolu ñun ay doomi réew mi lañu am nañu xam-xam ci loolu li tubaab yi nar ñëw jël sunu quarité yóbbu ko biti réew euh, defar ko foofu delloo si jaayee ñu ko lu cher ñun war nañu mën a gëstu xam-xam boobu def ko mm-hmm. mettraat ko au au profit de la population ci anam yoo xamante ne njëkk yoo xamante ne yu yomb yu yu yu jàppandal donc lii lañ leen indiloon na euh, tey ci wàllu karité xam naa du nuyoo ba beneen yoon. butin wu karité. waaw <laughs> may ma may ma juste dañ doon wan kii benn exemple rek la pour wane ne su réew mi. Euh, mhm. ndax n'importe quel produit brut <coughs> bu ñu màcc sànni ko. Mhm. c'est de l'or on peut transformer en produit de luxe. Mhm. loolu laa doon am ci lu may dolli. parce que def na am na niim bi saabu am na niim. ni bi c'est pour créer le besoin pour que képp ku war a jëndaat saabu bi defar saabu bi war nga jënd niim ci niim boo ko jënd ci yi ñoo koy def sunu yéene daal mooy organiser femmes yi en coopérative. d'accord un un fa une femme un revenu. jërëjëf jërëjëf. Adja lu ma ciy dolli rek mhm. li mu wax ne que dara jarul sànni sànq mi ngi wax ne que déchets yi gis nga déchets yooyu ñu muy wax noonu boo ko boo ko récupéré dafay nekk combustible mën nga ko def këriñ. lekk léegi muy nekk di dagg garab yi pour uti ay këriñ ak yooyu déchets yi ñuy liggéeyee ko mu nekk kër yi mën nga ko liggéeyewaat. waaw loolu am na solo am ngeen di xam-xam. waaw <laughs> ak xam rek. beauté naturelle ak xam-xam ñu lay gërëm di la sant. voilà xam naa kon euh, may nuyu rek dama am sama ñetti maman yoo xam ne foog ma nuyu leen ñoom ñetti ñëpp ay madame Lo lañu. madame xaar nekk fële ba Comico. Euh, keneen ki madame Lo nekk fële ci Wakaam ba tey. ak madame Lo euh, Awa Soumaré nekk euh, Mermoz ma leen di nuyu ñoom ñëpp di sima ay yaay yu baax mais également du nuyu Dalanda Diallo nekk mm. cité Apixi moom ak jëkkëram ak ay frèram ak toute la communauté guinéenne ak euh, ak ak pël maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp <laughs> voilà di gërëm eh, sama gan voilà ci teewam fii pour wane njëriñ li ci quarité rek mhm. mais karité daal c'est pas pour les femmes uniquement mais pour les hommes aussi mhm. pour toute la famille <coughs> bébé jusqu'aux personnes âgées mhm. donc maa leen di gën di ñaan daal même bu dul sama carte ngeen di woo karité carte dafay loo xam dafa baax ci nit ceeb dañuy wax toujours il faut favoriser Made in Sénégal mais il faut que le Made Sénégal soit quand même un Made Sénégal euh, de qualité nous serons fiers de vendre sur le plan national qu'international également jërëjëf ñu lay gërëm ñu lay bon mu nekk ay njëriñ yoo xam ne bon am na euh, ci euh, ci karité boote islamique ñu lay gërëm ci tàggat yaram ak coach international coach euh, Gomis Gagna Fara Ndiago ba ca Paris jëf waay ja jëf waay jaa jëf waay. waa ci loolu naka suba si. Ah, waaw toujours en forme comme ni ma leen gis nga ma. naa ah, tey da ngaa dem Tivaouane moom. ah ah fa ah, laa bokk. fa nga bokk moom da ngaa da kay maa ngi koy waajal. waaw ci nga ci nga nekk ci nga nekk ci nga nekk tey ñu wax ci wàllu uh, football uh, ñuy wax ci. tey dañuy wax ci équipe nationale junior sunu équipe nationale xam nga. dafa mel ni Sénégal am na ñu ko euh, xam waaye dafa mel ni amul engouement Sénégal day organiser Coupe d'Afrique junior en 2015 mars xam nga mars jot na ba léegi ba waa ba pare. Hmm. Euh, mais dafa am benn affaire boo xam ne moo mooy sunu équipe sunu équipe nationale bi nga xam ne mooy représente mooy ñu nar a équipe bi de fu mu nekk nii ah, jaaxal jaaxal na gars yi de non jaaxal na gars parce que équipe bi euh, xam nga match ay ci match équipe bi fu mu toll waaye joué na ay matt mais ba léegi daal dafa xaw a jaaxal gars yi ba euh, victoire mm-hmm. victoire daal moo ko tële am victoire moo ko tële ci match amicaux yi yàggul Euh, démb euh, bakki démb dafa joué ak Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire daan ko ñu ñëw mu bokk tournoi UEMOA euh, kii UFOA zone zone A mu dem ànd ak Mali Mali jël coupe bi booy xool ci ñetti match Sénégal benn bit la dugal <clears throat> loolu doy na wax ñetti match benn but la dugal mhm. bi ñu demee. ñu bare sax bii mercredi dañoo dem stade pour xool équipe bi maanaam xam nga équipe mën na sax bañ di dugal mais euh, muy jouer comprendre nga euh, équipe bi di jouer mais gis nañ ne ci jeu bi équipe bi convaincul équipe bu Koto bi convaincul te affaire bi jot na ñëw na mois de mars janvier février mars parce que deux mois moins de kii waaye nag Cotonou nag bi match bi jeexee li gars yi di jaaxle yëpp bi stade bi ñëpp di naan ni waaye moom nee na bu kenn jaaxle. léegi nag euh, euh, Modou Diouf andil ñu Joseph Koto après contre Côte d'Ivoire. dama leen di wax mais xam nga fi mu nekk euh, man li may demander rek mooy nit yi bañ a yàkkamti ñun suñu objectif xam nañ ko objectif bi xam nga mooy lan mooy le 8 mars équipe nu indi équipe bu nga xam ne pare na. bu mën a jouer au moins les demi-finales qualifier équipe bi en coupe du monde nous on est conscient du chantier qui nous attend xam nañu li nga xam ne moom la ñuy xaar moo ñuy xaar léegi nag ñu yàkkamti man suñu yàkkamtee rek lépp la ñuy yàq parce que tey ñun championnat Sénégal amul championnat bi mu ngi door a démarrer deux matchs soo seetee fii ci équipe bi euh, cinq joueurs noo ci joué ci match championnat bi mu ji ñu ci bëri joué wuñu au niveau de leur club donc ça veut dire que en forme yeneen équipe yu ñuy dajal nu ngi joué ñoom dañuy joué préliminaires yi donc joué nañu huit matchs pratiquement douze ñii joué ñu douze douze matchs ñun nu ngi suñu troisième match amical donc je pense que ne rythme yi bokkul mais malgré loolu équipe yooyu nu ngi jonganteex ñoom booy nu ngi wane li nga xam ne nu ngi wane jàmbaar donc je pense que amul problème man jaaxlewu ma dara dara ci résultat bi lii des huit mars lu nekk xaj na ci booy sunu joué xale yi suñu joué encore am trois matchs quatre matchs gars yi joué seen championnat booy joué championnat yi ak seen club ñu dem en préparation à l'étranger je pense que équipe bi dina gën a am cohésion mais soo leen ko seetee tamit yéen yéen journalistes yi yéen da ngeen koy vivre équipe yi euh, euh, euh, nu mu tudd transfert u joueur nañuy dundee joueurs yi dañuy dem di ñëw ñun mënuñu ci dara joueur bu dem dañuy ñëw ñun liggéey ak ñi nga xam ne noo fi nekk suñu dellusee suñu leen mënee intégré ñu intégré leen ci équipe bi mais loolu problème bu mag la tamit ci équipe bi mais ñu ngi sant yàlla comme dellu suñu joueurs yi ci bare dellu si nañu léegi dinañu continuer équipe bi liggéey pour euh, vraiment automatisme yi gën a ñëw ci euh, coach euh, ak ak nu mënti demee Joseph Koto mi nga xam ne mooy leen tàggat am na espoir moo am na yaakaar waaw am na yaakaar waaye boo boo nekk observateur da ngay xool ak ñim ñi mu digaaleel ca bés ba mooy coupe d'Afrique ba euh, Côte d'Ivoire qualifié na Côte d'Ivoire moo gën a fu mu nekk nii moo gën a taxaw Sénégal euh, yeneen équipe yi yooyu ñu gis ak euh, école yu ñu am équipe yooyu ñoo gën a taxaw ñun suñu équipe xam nga foofu tam loolu moo tax ñëpp jaaxle parce que affaire baa ngi jege te ba léegi gisaguñu maanaam équipe bi am ossature xam nga équipe da ngay am ossature da ngay am loo xam ne waaw loo xam ne foofu dañu naan ah dañuy mottali rek dañuy mottali après mais loolu nekkul ci équipe Sénégal boo toogee nii fii ba euh, mois de mars fu mu nekk nii ah doy na waar bon euh, mais moom moom boo gisee moom boo gisee mu am yaakaar moom mu ngi am yaakaar que temps bi amul benn équipe temps bi bare na mun na ci dafa waat Euh, kii équipe bi waaye ku xool équipe nationale junior bii jaaxle nga ku xam football boobu. Mhm. jaaxle nga ci équipe nationale football. Mhm. bon bu ñu jugee ci loolu léegi importe euh, kii maanaam enjeu bu équipe nationale junior enjeu bi parce que problème bi foofu la nekk enjeu bi dëgg la équipe nationale A xam nga fu mu nekk nii ñëpp loolu rek la ñuy dégg A bi parce que mu ngi dem Guinée équatoriale équipe nationale ga wa gagné kii. bul fàtte suñu benn dëkkandoo nekk na champion d'Afrique junior Gambie <laughs> raaye bii <laughs> dëgg-dëgg nañu du question sax damay jéem a xeeb waa Gambie waaye nag dëgg-dëgg ñun bi ñuy football boobu Gambie ah dëgg-dëgg ñun ñoo njëkk kii football te ñu ngi nii Gambie am na coupe d'Afrique ñun amuñu coupe d'Afrique depuis bi ñuy football amuñu coupe d'Afrique occasion la benn deuxièmement yow boo boo gagné ñaari matt ci euh, kii bi euh, euh, bi da ngay qualifier coupe du monde lan la coupe du monde di indi yow ci sa football ak sa dëkk boo qualifié muy nekk ñaar enjeu yaa ngi noonu enjeu yooyu nag saa yow boo ko amee jëm ci jëm ci jëm ci def lépp loolu la nag ki yore euh, jeune ci foofu lay waxee ñu déglu Mbaye Diouf Dia def naa fédération bala ñuy wax sax préparation équipe A bu mag bi dañu waroon a d' abord régler problème équipe junior bi parce que loolu mooy li ëpp solo aujourd'hui dem euh, Guinée Équatoriale gagné Coupe d' Afrique bi. du la indi pratiquement rien du tout amul benn njëriñ champion titre booy affiché rek la équipe bii ñaari match tere pour mu dem coupe du monde coupe du monde ku fay dem defe naa li mu am retombé ci sa football kenn xamul nu mu toll donc ñu ngi attirer attention encore plus fédération pour comité exécutif bii di ñëw ñu defal ko spécialement pour équipe junior bi waxaguma sax cadets yi nga xam ne léegi ñu dugg seen éliminatoire ñoom aussi am fa ñu regroupé am na lii lu manqué tel def naa loolu bu ñu jógee ci euh, janvier bi ñuy dugg nii war nañ leen a mettre ci condition yoo xam ne dina permettre ñu nekk équipe boo xam ne mu ngi préparé dëkkam pour qualifier dem coupe du monde te loolu jar nañu def ci tout ce qu'on a comme moyen pour mën leen gën a accompagner parce que li des moom bëri na lool lool lool. bala ñuy xalaat yóbbu équipe junior bi tubaab jalaaw standing bi ñu jox équipe A bi war nañ leen ko jox parce que compétition yi presque tolloo nañu fi mu nekk nii ndax dëkk yu rëy dañ la naan gagné coupe d'Afrique. mag nga dem coupe du monde moo ko gën fukki yoon ak juróom parce que li la FIFA di jox ak CAF ci moyen mën na permettre sa fédération sur trois ans ñu dund ko nga am nag sa dëkk di organiser am sa équipe bu nekk sa dëkk di ko waajal nga nekk dans trois mois nga war xam match yi njëkk yi rek yaa ngi ci quatre quart de demi finale yi mu dem coupe du monde defe naa loolu jar na moyen ci nekk yëpp ñu def ko ci. Euh, mu doon bon yeneen yeneen yeneen bagage ci. Euh, gis nga enjeu bi engée bi daf ci am solo enjeu bi. man euh, lu enjeu bi waaye man li ma wax sànq rek moo ci nekk man daal dëgg dëgg bi organise na am na CAN am na Coupe d'Afrique ñun tam pot bi wax ñun tam nañu góorgóorlu am pot depuis bi ñuy football amaguñu pot mais non c'est que xam nga wax bi il faut que ñu wax ko noonu pour nit ñi mën a euh, sànq parce que c'est pas normal. c'est pas normal euh, Mbaye Diouf Diallo li muy wax ni daf ko kii non c'est que Sénégal nag la Sénégal noonu la gis nga bu ñuy wax peut-être laaluñu ko. joxuñu ko gëddam petite catégorie. ma jox la benn exemple rek demal rek benn benn benn jour rek nga ne da ngay dem ju euh, da dem cette année championnat euh, kii petite catégorie cadet wala junior demal ñetti nit ngay fekk foofu ñetti nit ngay fekk foofu te nag bu ñu taree na fii nag ñoo dàq wax waxu football le football comme ça le football comme ça te xamuñu ne euh, maanaam avenir ma jox la benn exemple xoolal ma exemple man exemple ci ay euh, tegtal rek laay kii Nigéria dafa sacrifier benn année préparer ay booyam jël booy yi doon dem coupe du monde ak coupe d'Afrique préparer leen ñëw jël ku euh, kii ñëw jël coupe d'Afrique Allemagne ñii équipe Allemagne boo koy xoolaat ñoo ñoo jël coupe du monde ñooñu ñëpp ñu ngi commencé ay cadet junior di gagné di di àndandoo ba nekk noonu. Mm-hmm. mi ngir yàlla. am na solo. Euh, équipe nationale bii ngay gis bii bu Sénégal wax naa ko fii waxaat ka kañ lañ ko commencé tabax c'était l'équipe nationale junior de 2009 bi Nigéria éliminé woon fii Mayacine Mar yore ko Mayacine Mar mu ne élimination bi man méttiwuma waaye ëllëg mu ne ma daf ma waxoon mu ne ma équipe nationale équipe nationale junior junior bii dana dem Londres dem na Londres tey jii mooy ossature équipe nationale A. kon nag le football à la base dañ ko war a jox cëram. coach li mu wax mu am euh, solo xalifa <coughs> euh, yow tamit euh, taskati xibaar nga domaine sport bi yaa ngi ci sa xel màcc na ci nga nga di ci yëngu ba tey loo mën a dolli ci coowal wala ndax ndax sa xel tas na sa yaakaar tas na ba tey comme comme coach moom <laughs> yaakaaram daa tas. ci équipe nationale junior. waaw en fait mënuñu. jëm compétition suñu yaakaar di tas mais man ak euh, Joseph Koto bokkuñu ni ñu gisee parce que Joseph Koto boo xoolee dafa ni dese nañ temps moi je pense que temps bi du moo am solo mais temps bi nan nga koy meubler ba mën a préparer euh, parce que li ma gën a jaaxal mooy euh, Coupe d'Afrique bi du 8 mars la ñi ngi décembre presque janvier ñu nekk phase terminal la ñu waroon a fekk maanaam mu am mm. ossature am 11 mu leer ñu ni am nañ équipe léegi dañuy defaraat ay yu ndaw ndawaan mais ñun dañoo nekk ci commencement ba foo xam ni xëy na waroon nañ ko weesu euh, lu weesu juróom-benn weer wala at donc man responsabilité bi euh, li ko Gomis waxee moi je pense que c'est à partager parce kañ la championnat petite catégorie bu régulier gëj am Sénégal. boo dee xool li ñu am néew kus néew sax centre de formation yi la. dañuy def bu nee compétition am na ñu daw centre de formation jël fee huit jël fee quatre jël fee six taqale ko je pense que loolu indiwul euh, solution structurelle ay solution conjoncturelle la maanaam solution yi nii nañ ko def gaaw en attendant loolu du du du solution. Euh, enjeu bi c'est vrai des na mais man d'accord ma ak Mbaye Diouf Diaw euh, dëkk boo dem ci àdduna euh, équipe A mënuñu ko tëkkaleeg junior bien vrai que nii bu ñu gagné dañuy dem coupe du monde mënuñu ko tëkkale mais mën nañoo laaj ay àq ak beneen considération surtout ci match préparation et tout mais tamit coach bi mu jéem a taxaw wut equipe wut équipe parce que Sénégal Côte d'Ivoire bi ngay wax. Mm-hmm. bi match bi jeexee dama gis Koto wax ñaari affaire yu ma tiital benn bi mooy dafa ni day chercher amagul équipe. Mm-hmm. beneen bi mu ni ah Roger Gomis ñëw na. waaw parce que dafa amoon test. football bi dana gën a tane manaam li ma jàpp mooy moom dafa conti ci benn joueur pour defar football euh, loolu am na entraîneur yu ko def mais ñaare jour boobu su nekkul ci match bi wala mu blessé rek donc bëri na yu ñu ci war a defaraat euh, li ñuy def daal ñu gaaw ko parce que xëy na dimanche la tirage bi. Mhm. Euh, bu ñu tiree ñu xam ñun bokkal poule dina gën a tax ñu préparation ñu yokkaat préparation am daal. jërëjëf Khalifa Thio euh, Ndiaw des na xaw xam leen comme ni ñu waxee. <laughs> doy na wara ah, mooy li Khalifa wax rek Adja parce que fi nga xam ne équipe yëpp pare nañ yow nga nekk ci PC e ba ci waajtaay euh, je pense que bu coach moom yaakaaram tas na yaakaar naa ni man maay deuxième personne bi sama yaakaar tas euh, beneen chose aussi mu di ni euh, compétition bu ñu war a dem mois de mars kenn bàyyiwu ci xel en fait ñu bëri xamuñu ni que Sénégal mi ngi organiser Coupe d'Afrique te coach nee na Gambie am na pot ñun ñun de amaguñu pot <laughs> Euh, xam nga ba tey dafay dafay dafay xaw a doy waar euh, waxuñu ne que forcément équipe nationale junior dafa war euh, yem fi nga xam ne foofu la a toll parce que mënul bokk quoi qu'on puisse dire mënul yem mënuñu mënuñu mënuñu bokk niñ leen jàppee niñ leen niñ leen yoree ak niñ leen di diriger mais il faut mu am beaucoup plus de considération parce que bu dee nii tamit ñoom bu ñu waree football comme li Khalifa wax la ñuy boole xëcc